إن الله تبارك وتعالى يكرر وصاياه في القرآن الكريم حرصا على اهتداء الناس وسعادتهم ومن هذه الوصايا ما ورد في أواخر سورة الأنعام في آيات ثلاث متواليات بصيغ تتنوع بين الأمر والنهي حيث يقول تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون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 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الوصايا أيها الإخوة المؤمنون تعرف بالوصايا العشر وهي مما أوصى الله به الأمم السابقة khasatan ummata moussa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam noongi sant yàlla di julli ci yonente bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dinay tukki bokk yi yàlla danuy dénk ay ndénkaan ci alquranul karim di ko baamu di ko baamuwaat baamu get baamuwaat gi yépp lépp li ko waral mooy rek xeer gu mu xeer ci nit ñi gindiku ak xeer gu mu xeer itam ci nit ñi mën a am tax ak àddina ak gu àllaaxira dénkaan yooyu bokk na ci yi nga xam ne mu ngi ci saarul am ca mujj ga mu ne ci ñett laay yu tegaloo muy dénkaan yooyu yii lu muy digle la yii lu muy tere la ñett laa yu xaw yooyu gudd nga xam ne dénkaan yu bari ñu ngi ci dénkaan yooyu lañuy ñuy tuddee fukki dénkaan yi fukki dénkaan lu ñu xam la ci diine yi jiitu lislaam ak ci lislaam kon yàlla ay dénkaan la yum doon dénk xeet yi xeet yi jiitu seyduna muhammad ak xeetu seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rawatina xeetu sayidina moussa ci ñoom lañ ko gën a xame yaari dénkaan yi ci njëkk nag dañoo aju ci wéetal yàlla bañ ko bokkaaleeg dara bañ ko bokkaaleeg kenn muy benn ñaareel bi aju ci rafetal jëmee ci ñaari way jur kon ñaar yooyu ñoo jiitu ju dénkaan yi nga xam ne fukk lañ mu xamee leen fukki dénkaane yi yaar yooyu jiitu nag dañuy yaar yooyu alquran da koo jox yitte lool fu bari ci alquranul karim danay tudd yaar yooyu yi digle nuy jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg lenn walla kenn di digle itam ñuy rafetal jëme ci sunu ñaari sunu ñaari wayjur alquran bari na ci waaye sunna itam bari na ci lu waral loolu mooy yàlla moom mooy sababu amuk lépp lu am nit ci biir li am la bokk kon yàlla mooy sababu nit nit ki am nit ku man di doon yàlla mooy sabab ba gën a sori bi waral mu am kon yàlla moomu nga xam ne mooy sabab bi njëkk nit ki kon war na koo delloo njukkal war na ko delloo njukkal ni mu koy delloo njukkal nag mooy mu gëm ko te jaamu ko bañ koo bokkaale ak lenn loolu mooy gore nit ku gore noonu lay def ci alxuraan béréb yu bare bu yàlla di wax fi mu jaar ak nit ba noppi mu bañ koo gëm day wax naan dafa goree nit dafa goree di moo tax yàlla jaar ak moom fii fépp ba noppi mu bañ koo bañ koo gëm kon bokk na ci ngore nit ki gëm yàlla di ko jaamu moom rek bañ koo bokkaaleeg lenn delloo ko ko njukkal ndax lim ko defal moom mooy ki ko fi indi waaye yaari waajur itam ñooy sabab bi yàlla jaarale dikkug nit yàlla sabab bu njëkk bi waaye sabab yi gën a jege nag mooy ñaari waajur yi kon ñoom it fi ñu féete nit war naa tax ñoom it moom itam mu euh, rafetal jëme ci ñoom mu fonk leen tey rafetal jëme ci ñoom ndaxit it lu ne daj nañ ko ngir moom ñaari waajur yi danañ daj lu ne ngir seen njaboot ngir seen njaboot mën a dund ngir seen njaboot mën a tekki kon njaboot giit it war nañoo delloo njukkal kon yaari waajur yooyu loolu moo tax yàlla di jiital yaar yooyu yaari àq yooyu muy àq yàlla ak àqi àqi waajur yi loolu it moo tax ba ku sàggane yaari àq yooyu itam yàlla da koy xañ àjjana ku sàggane yaari àq yooyu muy wéetal yàlla bañ ko bokkaaleeg lenn ak rafetal jëmit ñaari wayjur yaari àq yooyu nga xam ne ñoo jiitu ku leen sàggane yàlla da koy xañ àjjana yàlla ci yàlla musal yàlla moom yàlla moo wax ne ku bokkaaleeg yàlla lenn yàlla day araamal ci moom ajjana te sawara mooy doon dëkkuwaayam loolu moo aju ci ki nga xam ne àq yàlla ji la sàggane muy alquran sunna itam muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kii ñàkk rafetal jëme ci yaari way juram kooku du dugg àjjana kon mooy yaari àq yooyu ku leen sàggane yàlla da koy xañ àjjana te kuñ xañ kuñ xañ àjjana yàlla nañ ci sawara rek moo fa des mooy doon dëkkuwaayam yàlla nañ ci yàlla musal doo nga ñaan yàlla moo may nu defal ñu àddina ak waa laaxira musal nu ci sawara sàmmal nu sunu ngëm ubbil nu wuntu yiw yi soob nu ci ak njub mottali sunuy mébét may nu fanu gudd ak muj ak rafet الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون إن الوصيتين الأوليين من هذه الوصايا تتمثلان في عدم إشراك شيء بالله وفي الإحسان إلى الوالدين وهما أمران يهتم بهما القرآن الكريم والسنة المطهرة ويذكران بهما كثيرا فالله هو السبب فالله الذي هو السبب الأول لوجود الإنسان يستحق أن يعترف له ذلك الإنسان بالجميل فيؤمن به ويعبده لا يشرك به شيئا والوالدان وهما من جعلهما الله سببا مباشرا لوجوده ومن ضحيا بالنفس والنفيس من أجله يستحقان أن يحسن إليهما ولأهمية حق الله على الإنسان وحق والديه عليه كان جزاء من يبخس هذين الحقين أن يحرم من دخول الجنة والعياذ بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لا يدخل الجنة عاق ولا مؤمن بسحر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 وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله وارض لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله فول لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا